fu ngeen gisee oto bu ñëw taxaw seen buntu daara fan yi di leen wax ne seen ndongo yi da ngay waaj pour ñu yóbbu leen ut leen yet man maa leen ko wax waa centre ginde ñi ngi wër di récupérer xale yi ci biir taalibe yi te état yónniwu leen ministre yónniwu leen centre gindi laa wax nañu arrêté li ñuy def démb ci 9 lañu dem yoof ci benn daara daara sëriñ Basiiru ñu koy wax sëñ Bas fekk barki démb lañ fa njëkk a dem ne ko xale yi feebar bi am nii da ñoo war a tax ñu jël xale yi yóbbu leen ci seen i waajur wala ñu yóbbu leen ci centre yi léegi waajalal xale yi suba ci 9h dañ leen jël si muy àllarbay démb 7h la am mbokk mu ma woo muy sëriñ dara bi ma wooyee ma ne ko bu ñëwee 9h leen wax nañ leen jox kayit buy firndeel ne xale yi dañ fa war a jóge ndax lu mel noonu buy am décret mooy bàyyeekoo ci ministère bi wala président wala wala wala. waaye bu leen yëkkati benn xale di leen ko jox ñu leen di yóbbu te joxuñ leen benn papier ñu dégg loolu 9 jot. ñoom sëñ daara yi ñu dajee fa centre gindi yeeg seen oto boobu noonu alors 116 lañ ci bind. D AD ak seen numéro boobu noonu li biñ ñëwee ne waaw xale yi lañ war a yóbbu ñu ne leen ana seen i kayit ndax président dafa bind décret buy wane ne daara yi xale yi dañ leen war a yóbbu. ñu ne non président bindul décret officiel mais dañ ko wax noonu pour feebar bi ñu jël ay matuwaay ci saa si ñu woote maire ñoom sëñ daara yi woote préfecture ñu ne leen ñooñu yëguñu leen yónni leen te ñooñu sax erreur la ñuy def ndax ñëw ci zone jàmm na yaa ngi récupérer ay xale te jaaroo ci mairie bi jaaroo ci préfecture bi deli bañ fay jógee waqat lañ fa jógee ak ndaw daw centre gindi laa wax démb mm. waaw loolu nag moo tax may alerter te lool noon xam nga li doy waar barki dee moo njaay dañoo dem Cambérène mm-hmm. fekk fa benn daara joo xam ne am na ay sëriñ daara yu fa nekk ak seeni ndongo ñu waxtaan ak ñoom ne leen xale yi dañ leen war a yóbbu ñenn ñu ñu ne leen waaw xale yi bu fekkee nangu ngeen ñu nax leen nax ba signé loo leen ba ñu signé ay sëñ daara ñeneen ñi bañ ña bañ ñu bàyyi fa seeni ndongo ña signé ñu jël xale yi yóbbu leen centre sauvegarde bu géejawaay ña ñu yóbbu am na ci koo xam ne ñett doomam mi ngi ci bokkaale ca sëñ daara ya ñett doomam dem na ca centre ba ñu ngi fa téye ñett doomam ba léegi nanguwuñ ko koo jox centre sauvegarde xam nga lan lañ ko wax fàllu li doy waar bi mu ñëwee di jël si xale yi dañ ne leen xale yi dañ leen a for ci mbedd ah ak trafic ña fa indi xale yi dañoo déclaré ne xale yi dañ leen a for ci mbedd te c'est pas vrai ñu ngi leen fekk ci daara signaloo dañu daara ba midi lañ fa nekk une ci bëccëg ba ci guddi gi lañ soog di jël xale yi ñu ne gannaaw léegi xëj na ci nañ leen bàyyi jox leen xale yi ñu yóbbu ko bi ñu demee centre sauvegarde lu ñu déclaré mooy dañoo for xale yi ci mbedd mi mais ñii moo tax képp kuy sëriñu daara boo gisee oto bu taxaw fan yi naan day yóbbu xale utal yat man Makhtar Sarr maa la ko wax kenn yónniwu leen kenn santu leen ba fii mu toll nii amul benn décret bu bàyyeekoo ci gouvernement muy wax ci daara yi nañu delloo ji benn xale la am tëngéej préfet def ko dafa waxtaan ak sëriñu daara yi ba ñoom ñoo nangu ci seen coobaree bopp mhm. ci lañ nangoo pour mu jël xale yi delloo leen boo leen dimbal yu leen jox mais bu dul loolu noonu amul kenn ku am benn sañ-sañ di jël benn xale te am na ñuy am lu ñuy ruumandaat ci suuf naan baa xale yi bëgguñ leen testé seen vaccin yi ñuy wax naan dana ñëwam du ñëw a ah, dañ ko wax nañ ciy ñaaw njort de beneen bi mooy mbirum pédophile léegi mi ngi ci dëkk bi fees fi dell trafic d'enfance trafic bi mi ngi fi fees dell daraa ci wóorul tey bu kenn nangu ñëw sa daara ñuy jël ay xale naan da da koy jël ne dañ la koy yóbbul bërëb sàngam kuy ku xam mbokkum sëriñ daara soo seetaane lii woo ko ne ko sa daara ku fa ñëw ne la xale yi dañ leen war a yóbbu ci centre lànkal li xel nanguwul dañu bañ xale yi ñu dajaloo ci daara mais bu ñu leen di delloo dañ leen di yóbbu ci seen i wajur mais bu ñu dajaloo ci daara ba noppi ngi leen di yóbbu ci centre centre yi dañoo gën a wóor daara kon centre gindi arrête ci li ngeen di def nii